Fresh Kid Z, Fresh Kid C, yes, sir. Fresh Kid P, la? Bi, bi 500000. 500000 cherul. non cherul xaar bi ku ko gis ni jaar na ëpp sax. ah vraiment. xaar yi fu ñu toll actuellement. waaw xar yi moom ñu ngi fi pour l' instant les prix varient entre cent mille jëm kaw waaw. xaru cinquante mille amu fi. non amul xaru cinquante mille moom. ndax clients yi ñu ngi ñëw bu baax a baax. waaw clients yi ñu ngi ñëw parce que gars yi moom fu mu toll nii moom ñu ngi jënd Sénégal xam nga amuñu espace bu rëy moo tax gars yi dañuy jënd di bàyyi si dara lii quoi looloo tax mais gars yi ñu ngi jënd clients yi ngi jënd ñu ngi jënd bu baax. est yaakaar nga ni xar yi dina doy. ah loolu moom moom moom pour l' instant li ma gis parce que ñun chaque année bu ñuy def opération heure fii da doon fees mais en ce moment moom xaw naa tiit quoi. li ngeen nekk nii ba amu leen fi ay jafe-jafe mbaa kenn du leen sàcc wala genre xar yi di dem. waaw ah, mais xam nga fii moom Sénégal sécurité bi dafa des foo nekk rek risque la mais yàlla moo la si dimbali rek surveillance bi gars yi ngi si di surveiller et tout ça voilà mais sunu mënoon am police mi jàll tout le temps di ron loolu dinañu arranger bu baax. parce que tamit jël say million investir ko ay Samba boo jóge fële yàq jël sa xaalis dafa metti bu ñu sañoon nag gars yi jéem a xool nu ñuy améliorer sécurité bi pour ñu ne si daral yi. Euh, Ameth Diène la tur bi. man maa ngi la dégg léegi nga naan yow yaay le plus grand des éleveurs est-ce que loolu dëgg la lan moo koy wane. bon xam nga euh, ci milieu boobu mënti nekk li ngay def fekk gëmoo ko rek yàlla mooy dogal doo ci avancé. Euh, xar bi nga yor nii nii ñaat lay jar nii. bon kii nag moo gën a cher ci xar yi nga xam ni yor naa ko fii nii waaw ndax euh, xar bi moom mu ngi jar cinq cent cinquante mille moom moo fi gën a cher quoi ci bergerie bi ndax euh, non seulement xale la mais race laadum la quoi ba pare am capital génétique bu extraordinaire moo tax ñu exposé ko. actuellement ku am ñaata rek war nga mën a am xar. Euh, bon bu fekkee xaru yar yi en ci cent ngay déparé minimum da yor cent mille moom bu fekkee xaru yar la quoi ndax bu ñu fàttee xaru yar yi ak coggal yi duñ benn. Euh, bokkuñu chair bokkuñu pelage bokkuñu nuñ mel bokkuñu nuñ bindoo xaru yar bi à huit mois day nekk xar bu fees dell xar boo xam ne day mat tabaski mais xaru yar yi moom xaru euh, ñi nga xam ne ñooy euh, coggal yi pël yi parfois carcasse rek la ñuy nekk ossature rek lan lay <laughs> lan lay mën a jox quoi. <laughs> actuellement yaakaar nga xar yi dina doy bu baax a baax. ndax Sénégal mutu mësul am autosuffisance ci mouton de tabaski bu ci mauritanien yi jàppul malien yi jàppuñu ci. ñun Sénégal li ñuy produire ci xar ñun sénégalais mën nañ ko lekk ci benn jour en un jour mën nañ consommer suñuy xar bu ñu fàtte ci ginnaaw nii rek amoon na feebar boo xam ne jotoon na fi am feebar boo xam ne faagaagaloon na ay bët yu bëri jaay yenn yu doon wax ay botulisme la ñii doon ko jàppee ak peste du petit ruminant bi nga xam ne vaccine nañ ko tout récemment ak feebar beneen feebar yeneen feebar yi nga xam ne euh, ñu ngi doon am ci xar yi quoi en parlant de feebar yow est-ce que yëngu ni benn am na benn feebar boo ñëw Kolda boo xam ne mu ngi rey sax seen xar yi yéen est-ce que yéen a ngi jël seen ay matukaay bu baax a baax baax balaa feebar bi di egg si Dakar. bon feebar boobu njëkkeewul Kolda rek njëkkeewul Kolda c'est que colda euh, fièvre aphteuse dañ fay wax euh, mu benn nekk benn feebar boo xam ni ni muy contaminé c'est tellement rapide mais nekkul feebar boo xam ni forcément dafay rey xar bi mais da koy anéantir te instant mu koy dal. stress bi muy am ak euh, euh, manque d'alimentation wala manque d'appétit bi nga xam ne daf koy am day tax xar bi gën a rës te ñoom boo seetloo seen xar yi déjà amuñu ñax te xar bu ci jël fièvre afteuse boobu noonu boo ñëw fii carcasse kese nga indi euh, ñun doon nañ am yeneen feebar comme yi ma la doon citeel fan yi du nañ ko am ci yenn bergerie yi surtout ñi nga xam ne ñu ngi def élevage laadum yi daan nañ jànkonteel ay feebar yu demee noonu mais yàlla baax na quoi. mais mbaa fi ngeen nekk amul leen fi ay jafe bon fii euh, euh, suñu jafe-jafe yu majeur euh, ndox bi moom alhamdulilah léegi ñëw na beneen bi mooy lu jëm ci côté sécurité sécurité moom yow miy veillé say xar bu fekkee veillé woo guddi gi yëpp <laughs> ça pose problème ndax amul sécurité rarement sax ngay gis auto police bi di def patrouille rarement nga koy gis beneen difficulté bi ñuy am mooy problème mu bâche yeeg affaire yooyu alimentation bu seer bi Euh, en parlant de sécurité ba seen xar yi nekku di dem wala ñu leen di sàcc. bon déggatu dégguma fi benn cas vol nag mais euh, daan na fi am ndax man mii bi ma fiy doog di ñëw prévenir woon nañ ma ni daaw am na kuñ fiy sàccoon euh, quatre xaram ci benn guddi mais alhamdulilah loolu dalaguñu te ñu ngi ciy veillé daal ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax. yan conseil ngay jox sa client yi ak client Sénégal yëpp. bon comme conseil bi ñu leen di jox chaque opération <laughs> tabaski ah. Euh, ndax euh, ki nga xam ne yor na xaalisam war a mën a jënd su jëndut ba xaalis bi dugg feneen rek après day am difficulté pour mu jënd xar te ku gis xar yi ni niñ nekkee nii ci marché bi teelut a jënd tamit bis bu demee ba affaire ne kët na jonn su bëggee am xar bu baax day am problème ndax bu boobaa coggal yi ñoo fiy des te coggal yi ay moyens de 70 mën nga am xar mais xar bi ngay daanaka ci jour tabaski bi lay yem wala du la satisfaire sax ci jour tabaski bi mieux vaut ñu teel a génn teel a jënd seen i teel a nekk à l'abri mën a euh, dalal seen xel dalal seen xeli njaboot ko